saraax la ñuy def ci xew xew làmb tey fekk fa waa Pikine nag Boy Niang ma organisé woon démb benn conférence de presse li càppaacoli Boy Niang l'ambassadeur de la non violence démb moo woote woon foofee ca Pikine mbooleem kuy champion te nekk ci làmb ji am licence Boy Niang de woona la mbooleem kuy mbëru VIP te nekk ci làmb ji démb Boy Niang contacté na la sababu woote ba nag nekkutoon lenn lu dul jàmmaaroog état bi ngir ñu reprendre activité de la lutte yi reprise des combats de lutte loolee moo nekkoon sababu ndaje ma mën nañ ne démb ca Pikine làmb doon laaj indépendance yi daje woon foofee di xeex li nu moom Boy Niang 2 ma piloté mbir ma ba mu geesoo wéetu ca waa Parcelles Assainies ñëw nanu gis nañ fa Papa góor a sook franc Siteu la tarkindaa moom i teew na ca ndaje moomee Baye Mandione mu gëm sa bopp moom i teew na ca ndaje moomee waaye moom Boy Niang démb bu geesoo day gis magam Eumeu Sène mu taxawu ko kanamu ko ginnaawu ko loolee moo waral ñu ne ndajem démb ma daal am na réussite totale Boy Niang 2 la mu def acte bu noble la moom Papa Sow bu Parcelles Papa xam le maa ngi félicité di encouragé Boy Niang 2 acte la mbër yépp la ko defal ñëpp xam nañ ne mbër yëpp la laal léegi nag li ñuy def mooy tendre la main à l'état tàllal ko suñuy loxo ngir mu jàppale ay doomam Siteu adversaire am ba daal di koy feelu ne ko état kay dafa war dimbale population bi lamb ji ñëpp a xam ne mbër yi amuñu liggéey te bokk na ci naqaru xol nga xëy jàkkaarloog sa yaay amoo dërëm boo ko jox rax ca doole ne état dafa war a ubbi lamb ji ñu bëre ji delluwaat ci suñu métier bu dee seen mag ja ëmma seen la moo xam le mooy dañoo war a trouver une bonne formule pour reprendre la saison dañuy xool ban stratégie la ñuy teg ngir mën a ubbi lamb ji rax ca la ñuy faje suñuy soxla di ci faje suñuy soxlay jegeñaale kon nanu bi ci ni mu gën a gaawee bu dee Baye moom ba mu jëlee parole la doon raay-raayal ca duut baaraam la mu xam mooy bu ñu jógee ci lii danañ dem ci yeneen plan d'action rax ca dolli moom Baye Mandione ne laa ngi nii ci salle bi ñi fi takk ay masque dañ leen di compter te kenn feebaru fi kenn wàllu fi kenn dama ne yenn yi ay caaxaan la nañu ubbi lamb ji ñu bëre ji état bi bu ñu yëboo xalaataat bu baax ci réouverture arène bi ngir ñu bëre ji bu si sunu métier léegi nag li ñu bëgg mooy état bi ubbi lamb ji ñu bëri ci bu ko ubbee ba noppi mu fas yéene accompagner waat ji dellu si waat sponsor yi fa mu jeexale nag mooy diggante Lac de ak Eumeu Sène ñene woon Boy Niang du ca wax Boy njuuy na leen Boy Niang 2 yëkkati na ay kàddu jëmale ko ca coow la amoon ca diggante Eumeu Sène ak Lac de Guiers la Boy Niang xamle mooy Eumeu Sène Lac de bu la waxee loolu war na la ko wax contrat ngeen seeq moo tax mu bëgg laa déstabiliser mbir mi nag du lu dul bataille psychologique ca la coach suroon may fekk fa Eumeu Sène ak Boy Niang nuyu leen saafoonteeg ñoom jël micro ba daal di xamle ne mbër yi ñoo ak bàyyi yenn coow yu sew yi dugg seen diggante yëpp coowal contrat la jële ko Eumeu Sène loolu du dara sama diggante ak moom wax la joo xam ne ba mu jeexee jeexal naa ko léegi comme que teew nga fi faaw ma yóbbante la ci moom boo yeggee ne ko mbir mi dana tàng jër leneen la sunu lamb remarqué ca ndaje ma mooy mbër yañ fa séentu woon te gisuñu leen le journal ba xam mooy ndaje Pikine moomee gisuñu fa waa Géejawaay ñu ngi fa doon xaar Balla Gaye 2 Lac de Guiers 2 Gouye Gui Less 2 Abdou Diouf waaye ñu ngi fa doon xaar Ama Baldé waaye kenn gisu ko kenn séenu ko gisuñu fa Modou Lo gisuñu fa Gris 52 gisuñu fa tafaatin ci champion yi ñooñee la sunu làmb fësal ne kenn gisu leen fa fa nuy jeexale mooy ca lees de may liste ay potentiel adversaire am di lim ama neex Forza Yékini Junior ak Malick Niang ñeenti mbër yooyee ca pareegul booye boo defaru ci lees de cité na la te mu ngi sa kaw moom ñeent ñooñee la lim xam ne ñoom la soxla mu ngi seen kanam ku ko ci jël mu yéen la metti jaar sa kaw jàll ku ko ci jëlul mu xam ne da nga ragal mbir